spectateurs de Dentel TV salam alaykum suñu mbokk internet yi comme niñ koy defee sa su nek rek néna Dentel TV du juk ci li nga xamné mom mo neex ay abonnés ba taxna ma ngi fi nga xamante mom moy mooy massa rawati na fi di ci M3A ñu fekk fi mbeur bu mag bo xamante Euh, le 23 mars bi rek mu ngi doon euh, nu mu tudd bëre ki nga xamante ne moom mooy Jamzo yàlla may ko ci ndam muy kan ki nga xamante ne moom mooy euh, Boy Pouye ah nekk ci école de lutte <laughs> Cheikh ba fii ci Kër Massar dañ koy daal di bàyyi rek mu daal di présenté wu ñu daal di dugg ci question yi Boy Pouye nuyu naa la. waaw maa leen di fay waa Dental TV soxna Awa maa ngi lay bu wér di la bëggee di nuyu waa Kër Massar yëpp. di kontaan seen émission tamit di rafetlu li ngeen liggéey bu rafet bi ngeen nekk ci dëkk bi vraiment di leen ñaanal daal ngeen avancé ca kaw a kaw ci incha allah yàlla defal leen jàmm li ngeen sumb daal yàlla na gën a jëm kanam daal parce que tam nit ñi Kër masaar fii ñëpp ñu ngi rafetlu seen liggéey. waaw loolu la. ok dañuy dem tuuti ci li nga xamante ne moom mooy carrière ci ki nga xamante ne moom mooy euh, Boy Pouye ah Boy Pouye ban année nga dugg ci li nga xamante ne moom mooy làmb ji. man de làmb ji maa ngi ci dugg sama premier combat maa ngi ko bëri en 2010. 2010 waaw. 2010 nga bëree sa li nga xamante ne moom mooy sa premier combat mbapat la woon wala li nga xamante ne moom mooy bëre dóor. non bëre dóor mbapat moom teel naa ko bëre bi may jàng école. waaw ci man euh, làmb bi ma bi ma ciy dugg maa ngi école boobu maa ngi jàng euh, ci benn euh, école bu ne communauté rurale Réfane ñu koy wax Kombelaan bi may dugg foofu noonu ñun suñ école dañu doo dañ doon def fin d'année école bi amul xaalis mm-hmm. léegi suñ maître ñoom Moussa Cissé ak ñoom Lat Soukabe ñu ne ko eh, moom école bi amul xaalis benn mbër bu ñuy wax booy Malaw sama gaayan la fils de Malaw ñu tëgguñu mu daan fa ñaari mbër troisième année bi ma ne leen jox leen ma ko ma daan ko boobu maa ngi école. léegi suñu maître laaj ma ne ma ndax mën nga koo daan ma ne ko mën naa koo daan parce que moment boobu entraîné wu moom mais football rek lañ daan def. léegi bi ñu defee noonu ñu ne ma ñaata lañ lay fay ma ne leen comme suñu fin d'année la lu ngeen ma fay baax na. léegi gars yi yëkkati 8000 non astafurla 4500 loolu lañ ma fay ci mbapat boobu. Lagi gaay yi mbafa bi jaay bi 1000 francs ñu genn ci fin d'année bi neex gaay contane ñu bëré ma daan ko waaw. oké kon euh, bi ngay doora mantan li nga xamantene mom moy bëré bëre mbapat sa école mom mo doon def fin d'année nga daal di bëré oké ñaata drapeau nga gagné ci li nga xamantene mom moy mooy mbapat ñaata défet nga ci am ak ñaata victoire. drapeau mbapat mom yima mbapat yima bëré yépp euh ñaari mbapat la ci benn bi ko ñaké réew maawo dama bëré ba final. Euh, léegi man ak ndooyoo ndooy laxas la woon bu fële bu caaro yi benn nag lañ fa tegan mbapat boobu moom laa njëkk a ñàkk bawal ci affaire u làmb parce que nag la woon mais dañu dem ba finaal yàlla def mu daan ma ci mbapat boobu waaw mais après ay bëri na jël naa drapeau yu bëri parce que ay lu mat sept drapeau mbapat waaw dafa daaw rek laa mujjee jël Adrien Senghor euh, ñoom général bu Malika ak ñoom Laadum ñoom Laay sengoor ak Ousmane Diouf ñoo ñëpp maa leen daan jour boobu maa jël Adrien Senghor jour boobu. ok ñu gis ne mbapat bi yaa ngi ci quitté depuis 2010 nga 2010 nga daal di dugg ci li nga xamante ne moom mooy combat arène bi euh, ban euh, mbër nga njëkk a bëreeg arène. waaw bi mooy mbër bi ma njëkk a bëreel arène ñu ngi koy wax euh, Ben Ladel. Ben Ladel bu Tëngéej. waaw Fallou Faye moo ñu tëggan grand combat ma daan ko. kon sa premier combat bi nga duggé ci arène dang ci am ndam comme ni nga ñaké won ci mbapat bi sa premier combat nga am ci défaite euh ñaata combat nga am ci arène bi. combat arène bi maa def 13 combat 13 combat 11 victoires 2 défaites. Ah, ok waaw. ban victoire mo la gëna neex ci yi nga xamantene béré nga ko ci arène. yi ma bi ma gën neex ci yi nga xamantene béré na ko ci arène bi. moy mhm. sama combat ak Gine boyof ak combat eh, bi ma daan fay biram lu tax yooyu gën laa neex ci dis treize combats yi nga xamante ne gagné nga onze yi perte deux yi. non xam nga dama koo jël fi ma dëkk sax am ñoo xamante ne ni ñu ngi doon wax naan booy boobu fay biram moo ko man da koy ma daan ko te moment boobu ñoom xamuñu ne man li may bëree du booyoo ñoo may téye quoi parce que man dama ne booy boo xamante ne bu ma xasee joxoñ ku teg sa loxo ma dagg ko noonu la demee quoi ñu ñëw ñu bëre prési production moo ko tëggan ma daan ko jël bu rëy. ñëpp ko commencé xam ne booy bii dañ kaa war a jàppale quoi waaw loolu la. Euh, Boy Pouye ñu gis ne bu njëkkaan euh, nu mu tudd li nga xamante moom mooy mbapat ni daan demee ak léegi nii bokkatul bu njëkk mbapat it xanaa chaque jour da nga doon dégg mbapat mbapat mbapat léegi boo déggee mbapat c'est un peu rare dafa mel ne ñi nga xamante ne dañ daan jàng bëre léegi dematuñ mbapat dañuy dañuy ñëw rek lijjanti seen licence rek dugg ci li nga xamante ne moom mooy arène bi moo tax léegi nii bëre bi daal di des naka nga gisee waaw man mbapat moom xam nga lan moo tax ma ma man ma mën a bëree man dañu nekkaan ci gox boo xamante ne réew maa woo ak Réfane parce que man bawal bawal laa doomu bawal laa maa ngi dëkk communauté rurale Réfane benn village bu ñuy wax Parguine nekk communauté rurale Réfane ak nguy candigi ay kombelaan ay seew réew maa woo foofu féppoo dañ doon def bu comme nii boobu noon ay làmb nii ñun bu ñu reeree ba suur dañuy dem di bëree dañuy bëree ba fajar foofu noonu daawuñ ñu fay dañ daan def mbafat bi rek ñu ne diw mo tay mbafat bi ñu ñew bok di beure ko ko dañ fa mbafat yo xamne da ngay samp nit ñew fel ngeen beure mais day dem ba benn moment yow yaay tay mbafat mi téye ko weer wéppoo ku ñew nga daan ko man mbafat yo ci la beur ci la jangé beure mo tax samay combat arène sax boo lo man musuma ñak lamb ci comme maram beur japp ma daan ma quoi man may beure ba ñakal sama bo bo lo sama dernier combat bima ñakone sama combat ak Tigo Tigo xaritu yaay mbu pigine maa ngi koy nuyu au passage loolu moo ma xañ parce que dañu dem ba egg naa ko foo xamante dem naa ba wër ko ba sax mais maanaam li ñuy wax fuggu ndaw ak comme nga nekk ci dynamique victoire boobu tax tamit ay affaire de top cinq ak li ma gars yi doon wax moo la dàq bëre ma wan ko ne maa la dàq bëre di ko jàngal ci biir ci laa def faux pas sama tànk glissé mu calme sama beneen tànk bi combat boobu laa ñàkkoon. combat bi loolu moo la ko ñàkkal est ce que tamit euh, nekkul ñi nga xamante ne xam nga yéen mbër yi boo leen di bëri xale jigéen ñi dañ leen di topp ngeen di fël-fëlaale ak ñoom est ce que du loolu moom moo tax nga ñàkk combat bi oh, xale yu jigéen yi bu may leen di fàtte mm. yàlla xam na ko samay xarit lañ nag parce que koñ bi ma dëkk dañ ma bëgg muy M3 xale yu jigéen yi bu may xasee am combat ba ci xale yu ndaw yi ak suñu yaay yi mm. kenn du am sago mais yàlla xam na ne combat boobu li ko xañ mm. maanaam fuggu ndaw rek ak gëm sa bopp ba mu ëpp moo ma ko xañ parce que kooku dama doon xool nii sax xam ne kii fu ma bëgg ak àgg ci moom dama fay dem jàpp ko rek laa bëggan te bi ma ko jàppee tamit boo seetloo bi ma ko fàqee comme kuy fee ci ndox dafa ñëw ba rom ma ma wër ko mais boobu noon li ma ko xañ mooy ay ay affaire de top 5 affaire de jeunesse daal affaire yooyu war ko yenu ba taxaw dóor ko ci suuf. mais mënan naa ko dóor sax fel ko mu ñu gis ne le 23 mars bi passé yaa ngi doon euh, jongante ak ki nga xamante ne moom mooy Jamzo ca Ibamar Diop yàlla may la ci ndam euh, danga may dikkal tuuti ci combat bi combat bi naka la demee ba nga xamante ne yàlla may la ci ndam may na la ci ndam entraînement yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jàpp ci combat bi. voilà soxna Awa loolu kontaan naa ci trop. Mhm. ñu bëri na ma Jamzo moo la man attanoo ko parce que Jamzo moo ma long moo ma lars ci côté même boo seetloo ci biir signature contrat bi dafa ma giñal ci yonent bi ne man bu ma ko daanee mu rendi boppam mais xamuma moom parce que man Jamzo maa ngi koy nuyu di ko ñaanal prochain combat yàlla may ko ndam bu fekkul ne ñun bawal bawal yi lay bëreel comme li ma waxoon keroog rek ci plateau mais Jamzo bu ñu taxawee mu waat ne moom bu ma ko daanee mu xaru xamuma parce que man li ma def ci mbapat defu ko li ma def ci bëre arène maa ko ëpp victoire gën koo niiwi defet gën koo féete ndaw tam kon xam ma combat boobu dama ko bëggan parce que dama taxaw ci signature bi mu waat dama kontaan billahi bi mu waatee noonu dama kontaan parce que dama xam ne kii bu ma ko jàppee laam ji jeex problème bi yëpp man mooy ma jàpp ko parce que bu ma ko jàppee maa ko dàq bëre maa ko doole foofu laa tegoon combat bi moom nag mu ñëw tamit wanaat ma ci loo xamante ne nii moom dafa ma dama ñëw reetaan sama gars yi ma ko jàppee lam ji jeex que kii xamuma parce que man ñi booy man ñi dàq bëre ci làmb ji man du ma ñee mbër ci daan dara comme action parce que man lu mbër bëre bu bër setee bu ma jàppee mbër man naakaa def ñu nekk ak entraîneur yoo xamante ne nii tamit wax dëgg yàlla combat bi bi ñu xoolee séance vidéo ay combat Jamzo ñu ne ma nii ngay taxawee ak moom nii ngay taxawee parce que Jamzo am na pied ba boo ko tegalee du bëre man tamit ma ñëw teg loolu xam naa ne mënuma ma songu te mënul xeex boo gisee combat bi après coow li bëri na ñu naan ay da nga koo takk ak noonu mbër da ngay xool ay qualité li nga xamante ne moom la mën ak li mu mënul nga bëre ko ak moom parce que man gis naa ne am na lool boo ko boo ni taxawee mu xeex mais am na noo xamante ne boo ni taxawee moom du xeex du bare te man bu dee saa yu ne bërit man maa koy njëkk ci parce que xam naa ne maa ko gën a doon gone maa ko gaaw mais ay affaire de takk sax loolu moom coow li bëreen na ci ba ci am na yenn journaliste yu ma doon wax naa ma da nga koo takk ay nen ak gisula ak affaire yooyu mais loolu demeewul noonu dañ ko fay fay ma nag wax dëgg yàlla parce que daroon takk may takk ñuy sangu kon bu demee noonu rek na rafet quoi mu félicité ma ñaanal ma combat bi tamit maan ci entraîneur yoo xamante ni ñu baax la ñu. bi ci biir combat bi boo seetloo ñu bare ngi naan Boy Pouye nanguwul mënul xeex affaire yooyu man na maa xeex mais moment bi combat boobu dama ci indaale blessure sama loxo bi mi ngi nii loxo bi mi ngi nii dama ci gaañu woon mi ngi nii gis nga baaram yi. première gos boo xoolee ci biir combat bi gauche bu jublaa tàllal mais bi mu dalee ci kanam gi sama série bi dafa tëb boobu ñemeetumaa xeex. ma ne naa ko nax jàpp ko parce que lii bu feeñee mën na yàq sama làmb quoi ma naxtaan ko rek boo seetloo dañuy jàppante nii ci kaw ma jox ko sama loxo mu téye ma téye mais bu ma yootoo damay jàpp loolu rek moo ma ci amal intérêt ma nekk ak entraîneur boo xamante ne Badasung suñ entraîneur physique ak ñoom Balla seen ñoom paate Dione ay Mbay Baaba Baye Ba de dëkk nit ku xereñ parce que moom dafa mën nañu jàngal bëre mais dañuy jàngal xeex aussi waaw ak suñu entraîneur bi nga xam ne moo yor suñu salle musculation muy Max Colobane body body Max Colobane foofu lañuy defee musculation moom tamit munu yóbbu euh, moniment de renaissance ak Ngor di ñu dawloo ay dix aller retour loo xamante ne nii boo amul xool sax doo ko doo ko matal ñu préparé suñ bopp ba nga xam ne ñun gëm nañ ne kii buñ ko jàppee du rek fof la won ok boy boy yow kan moy sa idole ci li nga xamantene mom moy lamb ji parce que buñu démé ci BG2 doomu doubles bi Balla Gaye dana mom Tyson mom moy idole moy référence am nga dem fële Rock energy fek fa Modou Lo mu ne ki nga xamantene mom moy yikini mom moy référence am yow ñooñu nga xamantene ay ancien lañ doon doon bëre kan mo ci sa référence wala yow euh, amo ci référence sa bop rek nga gëm né sa bop mom moy sa idole. waaw lool mom deug la mom wax deug yalla man maa gis ay gaay bare na fi ñu naan ay diw sama idol la diw sama idol la xañ na làmb mo demee noo xamante ni promoteur yi dañuy choisir mbeur di génné ñi leen neex mais comme yenn mbeur yi ni ñu génné won ba am ciowli li ay 6 combats arène ñi bëri ay 7 ñun ku ñu defal lool ñu wone li ñu wone ñom génn force mais tam nak dama am entraîneur bo xamanteni dafa def lu ne ci lamb muy Cheikh Mbaba kok moy sama idol ci lamb Keek Baba moom mooy sa idole ok Boy Pouye euh, <laughs> kan ngay fas yéene dëkk nii sa sa référence déggal ma naa référence sax maa ngi juum waa sa prochain combat kan nga xalaat na yow bu ñu la ko joxoon da ngeen bëre te bëre bi dina gaaw sama prochain combat moom instant bi Youssou Ndour bu Balla Gaye dañu war a bëre Youssou Ndour bu Père Balla dañu war a bëre man ak moom booy bi daa mën a bëre de gis nga keroog li mu def Boy Sey numéro 2 mooy yow Boy Sey numéro 2 combat boobu daal Boy Seye ñëw na ñàkk ko rek ñu ngi koy ñaanal mu dem liggéeyaat xam ne loolu la yàlla dogal parce que ndaanaan la mm-hmm. mais Youssou Ndour laa leen wax bu ñu ma ko joxee ma duma ko daan ko wan minute. yaakaar naa Youssou Ndour mi ngi lay dégg gone ak géej waaye googu dégg nga li nga xamante ne moom la Boy Pouy wax nee na yow la soxla kon nag ñëwal ngeen bëre parce que tamit boo leen bërewul rek mën ngaa def année blanche moom tamit mu def année blanche euh, dafa mel ne liñ ñu cërale woon ci waxtu mi ngi xuus jëm jeex dañ lay daal nga daal di waaw man nag maa ngi nuyu waa samay waajur sama ñaari waajur sama papa ak sama yaay di nuyu sama tante tam. ah di nuyu tam sama gaay yi nga xam ne ñoom laa nekkal ñoom Cheikh ñoom Leblanc ñoom Amadou Sané ak ñoom Assane Faye. Mm-hmm. wax dëgg yàlla ñoom tàyyiwuñ ci man ak fans club bi nga xam ne moo nekk m ñoom amul dara loo xamante ne dina am ci làmb loo xamante ne dinañu négliger boo seetloo gis nga banderole yeeg traag yi ci buntu kër yi lépp bu ma amee combat ñoom lay doon affaire animation bi dugg ci jeunes yi ket bi lépp ba ci añ yeeg kaar yi tout ñoom la ko ah waaw tam di ñaanal sama benn rakk boo xamante ne nii ku baax la muy Cheikh Pouy mu ngi Italie moo doon woote nii léegi sax moo doon laaj ci site internet bi lu ma soxla ci moom mu jox ma ko kooku yàlla na ko yàlla dimbali jàppale ko parce que tam daf ma yéene ba ma xam ko kook bu amee ñun suñ famille kenn du ñàkk parce que xolam moo rafet ah di nuyu ku mel ni Cheikh Diouf tamit jàpp na ci di nuyu grenade sama doomu ndey Mbay Jon liteur di nuyu tam ku ci mel ni sama doomu ndey ñoom Moustapha ñoom Pouy de yàlla xam na ne ñoom Pouy de ñoom Moustapha ñoom Baara Daouda ay ñoom xalifa di gërëm tamit koo xamante ne nii combat bi combat la woon mm-hmm. parce que moo tax combat bi yëpp neex muy sama papa Mbaye Diagne père Mbaye Diagne di foncé paa sama papa la dafa maa bëggal dafa ma bëgg comme doom yi mu jur. billaahi lu ne lay ñàkk ci man sama combat moo tax combat bi moom laa ko cëralee. Mm-hmm. ba démb rek bu duggee esat coow li day bëri. Mm-hmm. waa mais tam nag na ma gaa yi teel a jël te man ma dem grand combat parce que tam bëri naa treize combat man daanaan bu fi ne daan naa la. ay mbër daan naa leen ñoo xam ne tey ñu ngi bëre grand combat waaw promoteurs yi nag man instant bii mënuma jeexal samay moroom maa ngi liggéey di daas fanaanal di toog di déglu yëpp di ñaanal sama waa écurie yi ña fa am combat ñoom njaaxum ñoom bébé julde ñoom Mor Séréer Balla Lour ñoom fils de Zallo ñoom Mor Kankang yi nag gaa yëpp ñoom joomaay boîte vocale tout maa ngi ñaanal ñëpp daal ku fay bëre rek yàlla may la ndam di gërëm sama entraîneur Badasung bu baax ak Cheikh ñu ngi koy nuyu au ah rafetlu tamit yéen waa Dental TV yàlla yàlla suñ borom yëkkati leen ba ngeen yor seen télé bopp. parce que li ngeen def nii rafet na kontaan nañ ci trop rafetlu nañ seen liggéey quoi wax dëgg yàlla yow tam soxna Awa tam bu ma amee combat xam kii bi may defaat fii nii open press bi dama bëgg nga ñëw jël ko def ko en direct ñu jël ko. ñu def fi lu leer ci koñ bi ndax ñun amuñu lu M3 di gërëm suñu papa yi fi neyal ñoom temps Adja Diop ñoom sama kër Baye Fall yi temps temps Aïda ñoom temps Abi ak Aji ak suñ borom seen borom kër bi. Ah, tamit ama ama jommi woo mbëri tamit lii ëpp na. gis boo ko dékkee micro bi tànk jëloo micro bi du noppi. tamit waxal baay rek tamit ma daal di tëj ëpp na. non xam a lan la combat bi dama bëre ba pare. waaw toog plateau. war a gërëm télé bi nga xam ne moo defoon direct bi. mayuñu ma a gërëm journaliste bi dafa nangu euh, micro bi. Ah, xam nga tam loolu dafa metti. billaahi du dóor martu. yow tamit jërëjëf nee naa la. di gërëm Khady Diagne tamit suñu yaay ju baax la mi ngi nii ci koñ bi da daal di desa rek nee la nii lay demee saa su nekk rek uh, fii ci Dental TV ngeen ci doon ànd ki nga xamante ne moom mooy Sister Eva la Tigresse maa ngi woon fii nga xamante ne mooy Kër Massar m ñu fekk fi mbër boo xamante ne macha allah uh, muy ki nga xamante ne moom mooy Boy Pouye am dam uh, bu yàggul dara mu nekkoon le 23 mars fële ca Iba Mar Diop mu ci doon tase ki nga xamante ne mooy Jamzo ñu koy jox rendez-vous ba beneen yoon rek ak waa Dental TV may gërëm bu baax a baax sama caméraman bu ñaawul bi di baax a baax ba pula